bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokk yi mbokki njulli yi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare te di leen jaajëfal bu baax a baax te sàkku si yéen ñaan bu baax a baax ñu nuyu ñëpp léegi nag suñu yóbbalu tey ñu ngi ko jumale woon si euh, ci ay waxi yonent bi alayhi salaam wasalaam ay hadiis yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax mawdu bi nag mooy thème bi mooy jullit bu nekk saraxe war na ko mune yonen jële nañ ci kuñ nan abi musa radiyallahu anhu an nabi salallahu alayhi wasallam khala ala kulli muslimin sadaqatun fa khalu ya nabillah fa man lam yajid khala fa yaamal bi yadihi fa yanfau nafsuhu wa yatasaddaq khalu fa in lam yajid khala yuhinu sal aajati malhuf khalu fa in lam yajid xaala fal bil ma'ruf wa yumsik an sharri fa innaha lahu sadaqatun mu ne jëli nañ ci kuñ naan abi Moussa radiyallahu anhu mu ne jëlee na ci yonante bi sallallahu alayhi wa mu ne jullit bu nekk saraxa war na ko ñu ne ko yow yonante yàlla bi koo xam ne amul lum saraxa nag mu ne kooku liggéey ci loxoom jaree sara bu ko defee muy mu jariñ boppam ba pare saraxa si kuñ ko ñu ne ko waaw kooku bu amul lum liggéey ba mën a saraxa nag ñu mu ne kooku bu amul lum liggéey ba mën a saraxa nag mu ne kon na dimbale koo xamee ne borom aajo la koo xam daa am aajo te amul man doon def dara daal koo xam dafa lot si def dara nga man ko koo defal nga defal ko ko ndax loolu saraxa la ñu ne ko yooyu yente yàlla bu kooku nag bu dee amul lool nag kon nag nu muy def mu ne kon nag nay nekk koo xam ne day digle lu baax ba pare te aw aw ay jëmale ko nii nit ko xam ne dem nga ba amoo yëpp amoo loo mën a sarxe amoo ko mën a dimbalee kon nag del digle lu baax ba pare di téye saw làmmiñ ci aw ay ndax loolu sarax la kon loolu muy addis bu am solo lool kon nag li nga xamee ne moom lañ ci mën a jàngate mooy jullit bi war naa xemmeem di saraxe ab jullit war naa xemmeem mu toll di saraxe ndax saraxe dafa bari tuyaaba yu ci nekk soo demee si masalikul jinaan sëriñ ba mi ngi la fay wax foofu njariñi saraxe kon eh, boo ko jàngee danga nga gis njariñi saraxe bu baax a baax kon ñu saraxe am na solo lool ñaareel bi mooy eh, yonente bi alayhi salaam mi ngi soññee si liggéey ak fàggu mu ngi soññee si liggéey nit ki kon daa war a jéem a liggéey ak ngir nga man ngir liggéey ngir mën a am dara ndax waroo toog rek ay loxoy neen kon Euh, yonent bi mi ngi soññ ci nit ñi ñu liggéey yonent bi mi ngi soññee euh, mi ngi soññee tamit ci dimbale way ña aaju ak way loof yi nit ki soo soo amee loo ko mën a dimbalee nga dimbalee ko moo xam ku aajo wala wala ku loof ñeenteel bi mooy euh, yaatuk sarax saraxe nag nekk na loo xamee yaatul bunt yu bari la saraxe am na ci alal am na ci wax am na ci jëf kon saraxe daal lu yaatu ay mbir la boo amul alal man mën ngaa saraxe man ngaa saraxe ci wax mën ngaa saraxe ci jëf kon hadisu tey baa ngi noonu mu yóbbulu tey bi yàlla nañu yàlla defal ak dégg ak topp wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.